waaw dogal la boo xam ne ni waru ko woon jël ndax moom moo convoqué corps électoral wax ni yéen corps électoral convoqué naa leen le 25 février 2024 pour ngeen can tànn njiital réew dem ba le 3 février 2024 ubbitel campagne électorale mu indi leneen lu waroog loola loolu képp ku ko waaw yaag moom a ànd ci ay pexe te pexe yorul réew waaw mais euh, conséquence report yi mooy bu ñu demee ba ubbi campagne euh, dem di ko tëjaat du lu rafet du woy wu baax te nag askanu Sénégal bu ko kenn réere mbir jamono boo yaakaaree ni mi ngi nelaw wala ubbiwul ay bëtam li muy dund soxalu ko saa yoo ko yaakaaree rek mu bett la jamono ban la lay bett ci ban waxtu ci ban bis kooku yàlla rek ko ko xam ak askanu Sénégal bi yàlla xiir ci mu bett koo xam ne la mu ko bette rafetul li mu li mu bette Sénégalais yi rafetul kon nag bu ko Sénégalais yi bettee lu rafetul bu mu ko jaaxal